juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, ñun Télé Média xibaaru ngoon gi di ci gën a fës fetu Pâques mbokk chrétien yi màggal ko tey fépp ci àdduna gi fii ci Sénégal nag ca euh, cathédrale Sainte Anne euh, bu abe abbé si sa dellu si ci solo sa fête woowule waaye itam fàttaliku ak ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci làkk gu metti gu amoon ca Dakar bu Médina Gounass ñuy masawu njabootu di xalif bu Médina Gounass ca Sédhiou itam amal nañ fa ab mees ngir rek ñaanal ñooñee ñàkk seen bakkan ci jéeye boobule euh, am ci fan yi ñu génn abbé bi di Marcel Sadio moom it daal di rek fàttali nguur gi euh, li nga xamante ni euh, soxla nañ ko ci seen église bi maanaam ab ndimbal ngir rek ñu bàyyi leen xel Mbayeen Thias de nekk ca département bu Linguère foofe nag courant ndox mu sell ak bërëb yoo xamante ne euh, ñi fa dëkkee mën nañ fa fajoo du dara loo xamante ne am na fa ba tax na ñoom ñu ngi koy ñaaw lu amal nag ab toogaanu ñaxtu ngir rek ñu dégg leen neneen ñu mer ba futtu dina dëkke ca Kabrousse commune bu Diambérène ñoom it euh, lu leen metti mooy di seen suuf bi nga xamante ne dañ koy faral di ko saax-saaxee foofee ca gox ba bëgg nañ nag kilifa yi àddu ci ñu mu gën a gaawee ndax nit ñi def seen suuf si bëgg nañ mu dakk tàggat yaram première édition marathon euh, Dakar nag euh, doomi Kenya yi daal di wone seen bopp muy góor ñi di jigéen ñi daanaka raay yi tegoon yëpp ñoom ñoo ci teg loxo dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo ci njeexitalu xibaar yi mbokki ponk yangook nees tuut ñu yaatal dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen wax bisimila ci xibaaru ngoon gi doore ko lu soxal wàllu diine fetu pak ñu magal ko tey fépp ci àdduna gi fii ci Sénégal nag noonu ca cathédrale Sainte Anne bu Thiès abbé Henri VI jiite woon xew-xew mi daal di rek dellu si ci solo euh, fête boobule dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Daniel Diouf. dundu Christa bi bu yemoon ci bàmmeel bi kon lépp lu mu wax ak lépp lu mu def du ñu amal maanaam te sax am na benn boroom xam-xam Paul Moussale mi nee na massa ñun su Christa bi dëkkalikuwul ba mu dëkkalikoo firndeel na àdduna si sëpp ne mooy mis bu salkaat bi yàlla yónni mooy doomu yàlla looloo tax ñun chrétien ñu gëm ci moom te loolu moo di suñu reenu ngëm dekkaliku Krista bi mooy firndeel ne lépp lu mu wax lépp lu mu def yàlla ma ko ko yebal yàlla moo ko moom abbé Henri Cissé daal di yàddu ci meneen mbir di li xewoon ca Dakar bu medina Gounass ba lu ëpp ñaar fukki doom aadama ñàkk ci seen bakkan moom nag mi ngi ma masaw njabootu Thierno Amadou Tidiane Ba di xalif bu Médina Gounass mu ne nag ci seen fête boobu le fàttaliku nañu bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan moom abbé Henri Cissé dañuy teewlu ay kàddoom ba tey ci micro danielle Diouf ay jullit daje ngir ñaan loraange fekk leen ci ba am ñu ci ñàkk seen bakkan ñu ngi masawu di si ndigaale njobootu Medina Gunaas di si ndigaale président de la république parce que moom mooy njiit njiitu ñëpp te moom moo dogal ñetti fan yoo xam ne ñu war a teeylu ndax xalaat ci ñi ñu jiitu en tout cas ñun chrétien chrétien Sénégal yëpp ñu ngi masawu di ne waaw Médina Gounass ne ñu ngi bokk ak yéen seen naxar di ñaan tamit ndax yàlla ubbil yoonu àjjana ñi jiitu ndax yàlla taxaw ñi fi des tamit te yàlla yokk yiw ak barke nangu ñaan yi ñaan yu ñuy ñaan foofu ci dàkk Médina Gounass ci feetu pak bi lañuy des euh, ba tey ndax màggal nañ ko ca Sédhiou euh, foofe it amal nañ fa ab euh, ngir rek fàttaliku ñi nga xamante ne ñoom ñoo faatu ci daaka bi ñoom it nee nañu ñaanal nañ leen bu baax a baax ndax réew mi daanaka ñëpp benn lañu abbé Marcel Sadio nag moom moo jiite woon xew-xew mi moom nag leneen itam loo xamante ne soxal na ko di seen melukaanu église bi bëgg na nag kilifa yi taxawu leen jàppale leen ngir rek ñu yeesalaat boobee bërëb. yëpp ci ànd ak Bakary Konté Sall Samb mu nekk fête boo xamante ne fii ci diwaanu Sédhiou célébré nañ ko chrétiens yi di fa màggal Jésus fu mu dundaate église bi nag daal di ñaan pour ñoo xamante ne ñoo faatu eh, ci daaka bi ñi daal di dugg àjjana. Nous savons que nous dans un pays. où nous vivons où le dialogue islamo-chrétien. xam nañu dialogue islamo-chrétien dëgg la réalité la fii ci Sénégal loolu moo tax ci information bu ñu ko déggee ni Médina Gounass dafa am ñu fa faatu te ñooñu nag yàlla lañ fa ut dañ dem ut foofu ay ñaan loolu moo tax ñu ne communauté chrétienne su suñu message ñi ñaanal ñooñu pour ñu dugg. arjana ndaxte lu sensible la dafa sensible si ñun trop église bi nag loolu moo waral nag ñi daal di ñaan pour ñooñu ñoo xamante ne dañu faatu ci Médina Gounass ñu dugg ci arjana yi gën a kawe. pour ces gens qui ont vécu qui ont perdu la vie afin que le Seigneur puisse les accueillir dans son paradis. église bu Sédhiou dafa màgget loolu nekk ci ay tolof tolof ba tax na nag abbé Marcel di ñaan état bi mu daal leen jàppale. nous demandons aussi à euh, l'État ñu ngi ñaan tamit état bu Sénégal mu daal di xoolaat église bu Sédhiou ndaxte buy taw fii taw bi fu nekk lay jógee du dugg ci biir église bi. parce que ça soigne qu'il y a beaucoup de yi ñëwoon ci messe bi ñoom nag di rassurer fidèles chrétiens yi. loolu dafa nekk programme boo xamante ni président de la république Macky Sall ko soxal lool euh, sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci ñoo ko war a def ñu gaaw ci. Euh, gis ngeen li xew ci euh, yeneen mosquée yi ñu nga xamante ne ñoom lañuy ñuy tàmbali defaraat ci région bi Sédhiou église bi nga xamante ne moom moo nekk nii suñu ginnaaw euh, màgget na léegi bi ma nekkee ci biir nees bi maa ngi doon xool plafon bi amatul plafond maa ngi xool mur jaajëfal ko moom Bakary Konté mi ñu toogal fële ca région bu euh, Sédhiou ginnaaw lakk gu metti gi amoon ca Dakar nag ki nga xamante ne moom moo di euh, Amadou Talla di ab député moom ñaawlu na kàddu yi nga xamante ne nee na Moustapha Diakhaté moom moo ko yëkkati doon sàkku daal ñu dakkal daaka gi maanaam mu bañ a amati loole nag mu ne euh, rafetlu ko benn yoon lu mu bëgg sax moo di moom Moustapha Diakhaté mu dellu ginnaaw ci yooyee kàddu mu yëkkati noone ci nu mu gën a gaawee moom Amadou. Talla dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Diallo. ndax su fekkee ne mu ngi wax ne condition daaka yu baax su fekkee gouvernement bi walla sëriñ bi mënul réunir bon condition nañu arrêté daaka loolu du waxam man tey ji su ma déggee ku mel ni président Moustapha Diakhaté di wax di wax loolu man déception laa am dama rus tey sama président muy wax lu wax lu mel ni man fi ma ko xaare woon mooy tey jii mu diriger benn délégation ci turu assemblée national ñëw fii ci Medina Gounass jaal xalifa bi Medina Gounass jaal sëriñ si jaal jullit yi jaal Sénégal yëpp comme le président defee man li ma koy ñaan tey jii na jéggalu na baalu waa Medina Gounass na baalu ma Medina Gounass parce que lu mu def wax dëgg yàlla ñun nuñ koy xool Euh, dafa mel ne tooñ la ñun lii dañ koy naqarlu tey dañ koy naqarlu ëllëg euh, jéemoon na wax lu mel nii bi Ebola bi amee pour euh, ñu ne Guinée kenn mënu leen tere fii mu ne kon est-ce que duñu suspendre Daaka Daaka man wax naa ne benn nit ci biir Sénégal nekk fale ci Dakar tuuti na pour wax lu jëm ci suspendre Daaka loolu loolu wax dëgg yàlla dafa war def excuse dafa war a jëb eh, ñaan eh, waa Medina Gounass ñu baal ko mu retiré lu mu wax ca département bu Linguère la ñu jëm commune bu Mbaye Mbayeen Thiasde foofee nag ndox courant euh, ndox mu sell courant ak bërëb yoo xamante ne mën nañ faa fajoo doon lu jafe ca gox ba ba tax na ñi fa dëkk nag di ko ñaaw lu amal ab toogaanu ñaxtu ngir ñu dégg leen lu ñu bëgg moo di kilifa yi gestu leen ndax ay jafe-jafe dëgg moom la ñuy dund foofule dañ ci ànd ak correspondance bu Modou mbay mu nekk ci commune bu Kamb village bu Mbayeen Thiasde lépp la ñàkk. kàddu yooyu la askan wi fay yeewoo daal di biral suñ case de santé baa ngi ni ay mbaama ciy fanaan jigéen ju matu boo jëlee sarata mbaam bee bëgg ca teg mu ne bu ma ca yóbbu ndax kenn nekku fa ay muus doo nga fa nekk ak mbaam yi fay wéeru bëgg nañ tamit ku ñu collecter suñu école élémentaire bi nga xam te moo fi nekk tey boo demee moom mooy géttu mbaam yi te loolu nag bëgg nañ mu dañ bëgg nañ courant ndax Macky Sall mooy tourné ak parti ak ñi mu ànd ak fu ñu toll ñuy wax émergence émergence pour mu ànd ak dafa am ay xarala yu nga xam te bi courant moo ko yor kon ku amul courant mën nañu wax dañ laa privé si émergence boobu comme que ñun nag dañoo privé ñun day xool ku nga xam te mën naa lëkkaloo ñun ñu ànd ak moom. ñuy sàkku ba tey ñu tabaxal leen benn collège ci seen diwaan bi ngir ñu gën a mën a jàppale ndaw yi ñu yeggale seen njàng. parce que ku ne xam na ne xam-xam moo yoram réew ku xamul ci ginnaaw ngay féete moo tax ñu bëgg ñu defal ñu benn CEM boo xamante ne bi suñu xale yi nga xamante ni dañuy gaaw bàyyi école ñu mën a jàng am fu ñuy jàngee. fesal seen naqar moo waral ñu ràngoo seen morso yu xonq yi ñu ngi xamle ba tey ne dañoo doyal ci yenn ci diggéey yu yenn responsable politique yu APR yu département bu Linguère yi faral di amal te duñ ko respecté. Aliou Ndiaye liñ dige woon ñu ngi koy fàttali ñun suñ dëkk lañu am ku ñu liggéey suñ dëkk amul amul lu ñu njariñ. ndax lim ñu digoon lépp gisuñ ci dara gisuñ ci dara ba ñuy ay téeméer téeméer ak ñaar fukk ñaar fukk mais nga laam na ko fateex na ko fateex wan na ko ñun jéegi mbayeen casde ji dëkk bépp dëkk bépp dërëm maire ba futtu askanu mbayeen casde ñooy artu ne dàqu ñoo du mooy lii di APR ci élection député yi ñu dëgmal su fekkee ne seen i jafe-jafe amul saafara ñun nag suñuy carte la ñu utiliser Modou Mbaye ñeneen ñu mer ba futtu di ñu dëkkee ca Kabrousse ca bët sàllumu réew ma ñoom nag xëyoon tey ca buntu palais de justice bu Ziguinchor ngir rek ñaawlu seen suuf suñu jàpp ne dañ koy saax-saaxee loolee nag ñu joxoon ci baaraamu tuuma meeru gox ba di Tombong Gueye moom nag yëkkati na ci ay kaddu weddi ko jàpp ni lépp lu mu fa def daal daanaka dafa dëppook yoon dañuy teewlu ay kaddoom ci micro Boubacar Dias kan bu Kabrousse ci département bu Oussouye takk ay brassard yu xonq ànd ak seeni kilifa aada ak cosaan feesal palais de justice bu Ziguinchor kenn ci ñoom la ñuy atte coow lu jëm ca suuf moo dox digganteem ak am opérateur économique askan wi joxoñ baaraam tuuma jaraaf bu jemberin di joxe suuf di ko dagati nooy dagati terrain jàmbur di ko séddale ñii ñu bokkuñu wekkuñu ko fenn suñu suuf yi kenn ko laalatee wala lu am rek mu fekk ñu foofu mais dafa doy sëkk ñu ñëpp ay Sénégal lañu kon nag mënuñu dëkk suñu dëkk bari mënuñu am ñu droit ci suuf. tontug jaraaf bu li nga xamante ni moom sama moom la sama mbokk Kabrousse si def dam koy ñaawlu ndax nit ki boo amee sa góom ba ñëpp xam ne lii góom la waroo ko wan wane wane addina si yëpp man dama jàpp ne incompréhension rek moo ci nekk. mënu mu wax sax mauvaise fois euh, domaine boobu nga xamante ni moom la ñuy tudd ci euh, question boobu entrée Cap Skirring bi la commencé woon nañ ko jaay man bi may nekk sax élève demaguma woon université commencé woon nañ ko occuper mais occupation bi moo baaxuloon domaine boobu dafa bokk ci euh, les dépendances de la route en l'espèce loi bi dafa euh, leeral mbir yi ba mu leer nañ n'est-ce pas dépendance de la route état dafa bokk ci la domaine public de l'état ñoom ñëpp ñu ñëw fii nga xamante ni euh, noo fi bokk yem ci suñu gox gi ñu daal di liggéey affaire bi nest pas de sorte conseil de concertation bi nga xamante ni moom lañ créé euh, kilifa yi euh, aada yi ñu ngi ci biir imaam yi ñu ngi ci biir chef de village yi ñu ngi ci biir les élus ñu ngi ci biir su ko defee ñu daal di teg yëf yi yëpp ci table bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu traité ko man loolu rek lay ñaan jeex na. commune bu Diembéring am fukki dëkk ak benn. waaye su doonoon raw gàddu Cap Skirring mooy jël ndam lii ci coowal suuf. Boubacar Dias yi ñu koy jaajëfal kuréel gi ëmb liggéeykat euh, yu société bu diplôme ñoom nag daal dinañu yëglu euh, tey liggéeykat yooyee ñu dàkkoon leen ci mars 2016 ci seen liggéey nag ñu ngi sàkku ci président Macky Sall mu wax ci seen situation ndax euh, mbir mi yóbbu woon nañ ko ci yoon ba ñu am ci dëgg waaye ba jamono ji ñu toll daal mënuñoo egsi ci seeni bërëbu liggéeyukaay loolee la lu leen metti la ba tax na ñooñu nga xamante ñoom la dàq daje nañu tey ko euh, suñu correspondant ca banlieue bu Ndakaaru Salif ñu ngi aussi boobu ba léegi depuis mars 2016 ba léegi ñu ngi yéeg di wàcc dem nañu dossier bi on l'a mu ngi devant les juridictions donc ñu ngi si ñu ngi yéeg di wàcc donc ba tey mu ngi dem maintenant dossier bu gën a am bu gën a solo mooy le dossier des délégués du personnel parce que yëpp mais parce que foofu dafa dafa dafa dafa ba fii loi loi travailleurs yi la ba fii parce que délégué du personnel yoon dana ko pour nga dàq ko il faut nga jaar donc depuis lors nag jaar na procédure yëpp dem na inspection du travail bañ na mu jël ministre bi ministre bañ mais normalement il doit intégrer les délégués du personnel à le poste de travail fay leen seen salaire mais ba tey def ko. sexe yi bu muy démarré dara la il est parti de ñii travailleurs yi ñoo ko def tey bu doon lu mu doon mais bu xëyee tey dàq leen sans droit 127 travailleurs depuis presque un an. ñu ngi sauvé ñu ngi ñu ñu ngi toog di di chômer nit ku nekk nag ba nga xëy di liggéey xëy nga ñàkk sa liggéey peut-être dem ay conséquences yu muy yu muy teg loolu ma ala lu ala koy def mais dans ce sens sant yàlla suñu borom. jaay doole la kon kooku nit kooku il faut que Macky Sall wax ak moom le président de la République son excellence parce que lii natt la bu ñu bëri yàlla teg aussi daañu ko xeex nag sëy na xam ni ne ko combat boo xam ni moom si boppam sax xamul fan lay yem. ca université Gaston Berger bu Saint-Louis la ñu jëm foofee nag Mary Teuw Niane di jëwriñ bu ñu dénk wàllu njàngale mu kawe mi euh, xamle nañu fi nguur gi taxaw na temm ngir rek jàppale étudiants yi euh, ci naka la ñuy def daal ba bu ñu génnee pare jàng mën a amal seen bopp euh, liggéey loole nag nee na programme la bu am solo bu ñu tëral moom Mary Teuw Niane ci yooyu les kàddu ci bi ñu fay amal ab cérémonie de graduation des étudiants titulaires de master de l'UFR dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop Habib Seck gouvernement bi mu ngi cee liggéey ndax xam nga président Macky Sall dafa taxawal plan Sénégal émergent ci plan Sénégal émergent dafa am ay coppite yoo xam ne da ko ci indi am na coppite boo xam ne daara yu kawe yi la la ko jagleel ndax dafa ni ci coppite boobu nañu fexe ba li ñuy jàngale méngoo ak bëgg-bëgg koom-koomu réew mi ndax loolooy tax xale bi su amee lijaasa mu mun a am fu mu xëyee mbaa sax mu mun a taxawal këru xëy bi di xëy jël tamit ñeneen ñu cay xëy ci loolu nag sax enseignement supérieur dafa am programme xale yi sax xam nañ ko PSEJ kooku dañu jël xale yoo xam ne dañu am seen lijaa lijaasa tàggat leen ngir ñu mun a nekk patron d'entreprise su tàggat bi jeexee ñu jàppale leen ngir ñu taxawal seen këru xëy su ñu ko taxawalee ñoom danañu xëy xëyal ñeneen ñi donc loolu tamit wàll ci daara yu kawe yi dellu si fii ci ndakaaru dem ba ca banlieue ba wax ci xale yi nga xamante ne dañoo amee laago ñoom nag ay jafe-jafe dëgg la ñuy jànkonteel ngir rek euh, mën a jàng jàng gu jaar yoon loole nag kuréel gi ëmb ñi amee laago fii ci Sénégal ñaawlu na ko sàkku euh, ci président Macky Sall daal bàyyi leen xel bu baax a baax leneen lu ñuy defati ci réew mi ñu bàyyi leen euh, xel yooyu tout tànk kenn ci ñoom di xadi baax dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Salif situation xale yi ci banlieue bi surtout handicapé yi li ma ciy wax mooy dañu nekk heure boo xam ne dañuy prôné li nga xam ne mooy éducation inclusive bëgg a boole xale bi nekk handicapé ak bi nekkul handicapé ñuy jàngandoo loolu soo ko bëggee def da ngay da ngay démarrer ci base bi. école ba xale ba war a dal handicapé bi dal fa ak ki nekkul handicapé nga rendre ko ba mu accessible su waree ñëw jàngi du am contrainte donc l' état déma devait démarrer dafa waroon a commencer ci loolu rendre accessible d' abord former des enseignants yoo xamante ne dañuy mën enseigner ki nga xam ne sourd la ki nga xamante ne aveugle la ci méthode braille parce que y a d'autres de handicapé ñoo xam ne duñu ay handicapé moteur rek mais ñoo xam ne d'autres types de handicapé dañ donc il faut ñu am ñoo xam ne dañu leen spécialisé ci loolu. gouvernement bi li ñu leen di ñaax moom mooy ñu ngi def mais ñu yokk accompagnement bi parce que moom moo des il faut que ñu jéem a accompagner bu baax organisation de handicapé organiser euh, accompagner aussi li nga xam ne mooy éducation parce que éducation mooy base lépp jàng bi mooy base du moo tax ñu dañuy bëgg ñu gën a accompagner euh, euh, éducation bi jàppale ñu ci parce que ñun aussi dañu am programme scolarisation ak xale yi ci école ba ci wàllu caada la ñuy yegg si wax ci journée culturelle yi nga xamante ne euh, naar ya nekk ca Waalo ak ña nekk ca Mauritanie amal nañ ko ca Dagana li ñu bëgg nag moo di gën a rataxal seen diggante ci ñoo ne ñu fàttali ni itam Sénégal ak Mauritanie benn bopp la ñaari réew yi dañoo war a mën a déggoo te it euh, fexe daal ba ku ci ñoom boo jógee fenn dem ca beneen réew ma nga gis ci sa bopp maanaam bañ am benn jafe-jafe euh, ci seen journée culturelle yooyu lee suñu ay correspondant di Ousseynou Diop Habib Seck ñetteelu édition journée culturel association association moor yi nekk ci Waalo nii lañ ko amalee. fii nag lu jëm ci wàllu thème bi ñu doon waxtaanee bokk na ci wàllu jigéen ñi xamal leen seen ëllëg ngir suba ñu mën a xam seen cosaan ñoom naar yi ci journée culturelle bile ñu ne la ñu bëgg bokk na ci gën a rataxal diggante bi. ñi fi dëkk ñëpp ñëkk benn xeet ñu jàpp ne bu ñu pour euh, amee association pour gën a mën a jokkalante pour gën a mën a jàppante il faut ñuy def ay journée culturelle yoo xam ne daf ñuy rapp dañ ciy rappeler suñuy ndaw li xewoon démb ak fi ñu jëm su ëllëg. lëkkaloo bi nag war a am ci ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi tax nag kilifa yi nekk ca Mauritanie ak yi nekk ci Sénégal ñu fexe ñu ànd ci ndaje yi le si seen journée bi ñaan nañu xeet yi ngir ñu gën a jàppante. loolu moo tax ñu élargir ko ubbi ko ñu ne léegi ñun dañoo bëgg chaque fois ngeen di def. ñuy bokk malgré que ni ngeen di ah, ni ngeen di aviser seen i nguur ñuy ñëw seen autorité ñuy ñëw ñun tamit dañoo bëgg ngeen di ñu ñu wax ak suñu autorité ñoom ñu ñu mën di fekk si. c'est pour euh, élus locaux euh, li nga xam ne ñoo nekk fii ak élus yu nekk fee ñoom ñu ànd ak seen population ñoo fekk si ñu parce que. association des morts di Waalo seen ñetteelu ndaje bi ñu amal ci Waalo ci daggana ci village bi lay di gàdd gi xam xamle na ni culture rek moo mën a indi jàmm ci diggante ñi nga xamante ni ñooy xeet yi. culture moo mën a jegele ay nit ay xol je gis naa ni xeet bu bëgg a dugg ci réew mi am ci sa cër am nit ñi miin la nit ñi xam la il faut nga am sa message boo koy lancer à travers quoi la culture moo mën a lancer sa sa xeet mais moo la moo mën tax sax xeet mi accepter yow sa nekkin ci biir sa bokk ci biir sa xeexeet bi. ndaje bile nemmeeku nan ay kilifa yu bare ku ci mel ne Omar Sarr bu parti démocratique sénégalais nekk maire bu daggana yeneen maire itam yu nekk ca Mauritanie ñëwoon ci xew-xew bi mu mel ne kon association des morts du Waalo la ñu bëgg jamono jile mooy lii di cosaan ak aada bi mën a boole ñaari réew. ci wàllu tàggat yaram la ñu yegg si wax ci première édition marathon bu Dakar nag amal nañu ko xew-xew la bu am solo euh, doomi Kenya yi ñoom wane ci seen bopp bu baax a baax muy ci góor ñi di ci jigéen ñi daanaka raay yëpp euh, ñoom ñoo ci teg loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo organiser événement bi nag rafetlu ni mu demee ndax jàpp nañ ne lépp luñ ci séentu woon gis nañu ko léegi kay li ñu bëgg moo di di ko amal at wu yàlla sàkk dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw Younous Diatta podium 100 pour cent Kenya ak Éthiopien ah, ci góor ñi ak ci jigéen ñi mel ni waa Afrique australe séddoowuñu ak kenn première édition marathon international bu Dakar. I feel so good. kontaan trop gannaaw ba ma gagné course bi lee jàpp naa ne nag euh, niveau bi moom amoon na solo trop. Amadou Diaba nekkoon fi ancien champion olympique di rafetlu édition bu njëkk bi di yaakaar fileek ay at champion Sénégal yi dina dinañu jege champion yu Kenya yi ak Éthiopie. édition bi permettre santé et sport Éthiopie ak Kenya ñëpp xam nañu ñoom mbirum daw si fond demi-voie marathon ñoom ñoo mën si àddina bi même record du monde marathon ñoom ñoo ko yore mais ñun nañu permettre ñu entraîner suñu athlètes yi. un Sénégalais ba nga xam ne un jour ou une autre Sénégal dina mën a gagné marathon fii à Dakar loolu la ñuy ñaan. premier ministre moom leen rek mooy mbébétam fexe ba marathon de Dakar ñu koy organiser at bu ne. li ñu président wax mooy marathon bi nekk maraton international ndax looloo tax mu jóg du lu ñuy def rek fu toogaat fukki at naan dinañ defaat marathon ak lële IAAF nga xam ne moo mooy gérer sport ci monde bi athlétisme dafay dafa am cahier des charges pour marathon di nga ko def ñaari at respecté kay de charges bi nga mën a postuler ñaan ne léegi dama bëgg sama marathon it bokk ci marathon adduna bi. 8000 participants ci marathon bi 5000 ci semi marathon bi organisateur yu marathon bu Dakar gis ni première édition bi ndam lañ ci jëlee li ci des nag mooy fexe. ba boole ko ci rendez-vous athlétisme mondial at bu ne. Cheikh Tidiane ndam lañ ci jële waaye xew-xew boobule ñu bëri ci ñi yeewoo fi ci ndakaaru yëguñu ko woon rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy faral di jaar ci axe euh, Wakaam Ngor ak virage ñoom sax tey ci suba amoon ay jafe-jafe ngir mën a doxi seen soxla ndax fekk nañ ñu baare yoon wi ñu ñaawlu nag ñàkkum communication gi ñu jàpp ni moom moo waral mbir moomulee dañ ci ànd ak Alassane Ba Ami Diop virage la jóge Wakaam la jëm nii la ko nar a ba yegg. waaw soo de laa jëm dama koo xam kon nee laay jaare. maa ngi toog fii depuis huit bu xaar oto euh, mais maa ngi bloqué fii quoi. ah dama génn dama am dëj mbaaw laa jëm ma jël kaar génn fii ñu bloqué ñu. depuis sept heures et demie. yu bëri nag dañu nar a dox ba yegg fi ñu jëm yëgguñu woon li ni mel. sonn na trop dama jóge merci Castor daw naa bu sonn lii metti na prochaine fois bi ñu koy def ngir yàlla nañ ñu dimbali ñu wax nit ñi fan la ñuy jaar ñu wax nit ñi ñu toog seen kër parce que aussi weekend bi lañ am pour mën a dos suñuy course bu ñu baaxee tali bi baare fee tëj fii c'est pas normal. metti na trop parce que ñun euh, xamuñu woon affaire bi nu mu demee quoi kenn affiché wuñu ko. gars yi dañu waroon normalement wax ko si journaux yi ba rajo yeeg yooyu non d'accord sax am na pipe mais pipe bi dafa des. woto yi itam bloqué yoon yi ñu baaree chauffeur yi obligé wàññeeku. man su ma xëyee cinq heures matin su ma ko jógoon sax mën naa bàyyi ba yenn heure ma doon xëy. man xaaruma loolu ba man boo yoree a ko ko génn nooy def sànq ñu ne ba question benn femme daa bàyyi maa këram ba ko yóbbu day matu oto daa paan mais daa mujj inspiré pour dox dem. ko de aéroport la yooyu dëkk léegi xool kooku bu du mu génne malaat bi. yëguñu ko gars yi ne nañ annoncé nañ ko si rajo bi mais mooy loolu daal xam nga ñun dañoo xëy rek yem ci. ñu ngi nii suba ba léegi ñu ngi gaare suñu oto yi liggéey lu ñu dara dara liggéeyuñu ko te bu ñu nu ko waxoon bu fekkoon te ñun xam nañu ko du ñu déplacé wu pour di sonal suñu bopp. mu mel ni ñoom ci seen bopp dañu bokk ci maraton de Dakar bi gëm yàlla ñenn ñi sax mu mel ni dox bi sawar nañ si. je commençais à transpirer donc ça va aller quoi. san baa ñu koy jaajëfal mu mel na dox bi itam am na solo fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru ngoon gi jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi fii leeg simili yu néew la yaa dina fi teew xibaar yi ci français lay doon ñaanal leen guddi jàmm